xamante ne moo waral coow li parce que actuellement ñi ngi en pleine période de de euh, suñu gaynde nekk ci compétition euh, joué nañ benn match gagné deuxième match bi coow li bëri torop ñu daal di koy ñàkk euh, coow li bëri ci ñi di ngaañ entraîneur bi ñi naan joueur dañoo manqué de de de combativité autant pour moi mais tamit tey ñu dëgmal suñu dernière sortie war ko entamer dans dans quelques heures lan ngay wax aussi ci CAN bi tolluwaayu Sénégal ak man moom xam nga équipe nationale moom li ma ci wax dafa dinaa ci wax nag mais li may dafa bëriwul parce que man benn joueur laa muy Mamadou Thiam doomu Idi Thiam mi ngi Angleterre mooy sama joueur te comme li may wax rek euh, euh, ñun dañoo am entraîneur boo xam ne amul onze type moo tax doo man di ci wax wala entraîneur boo xam ne tamit euh, vraiment man damaa xamul daa dëgër bopp xamul ko dal beneen bi mooy xam nga xam boo déggee waxin wi neex man damaa xamul joueur yi mën a football yi ñoom lu dul dugal. wala dama xamul day def day def day day teste teste bañ toogaat ba mu ñëwaat moom chaque jour day teste teste teste ban mosuñoo kii ba mu ñu doon tooga bu jëlee ñu a football ñi nga xam ne ñun am nañ ay joueurs mais quantité ak qualité bi nga xam ne moo koy teg pour football lal ci biir terrain bi moom la entraîneur bi dul jël risque ci pour def ko mais da ngay jël ñi mën a football nga dugal leen ñëpp mënuñu footballandoo mais bul def test kii suba test kii imagine li ma la bañ joxe équipe bi suñu entraîneur ba tey chaque jour équipe ba ñuy testé amuñu onze type départ te loolu entraîneur du noonu lu ma xam ñàkk xam ne xam ne football ñu ma ñàkk ñàkk xam ne football nañ jël ñu mën a football ñu jox leen ñu football ñu mën a football ñu moom bàyyi ko équipe bi may ko confiance bàyyi ko moom mu def liggéeyam mais fi mu toll nii moom mënuñu ko bàyyi mu def liggéeyam parce que tamit équipe bi ñun ñëpp suñu dërëm da ciy dem équipe bi suñu équipe la kenn ku ne ni ngay wax sa xalaat duñ ko ko bàyyi ak moom noonu rek mais nañu bàyyi te nañ na bàyyi tamit xam nga bu nit ñi waxee lii mu defee ni xam nga di werante nag ñoom ak yooyu affaire vraiment Aliou Cissé ku gëmoon équipe bi la bi muy football mais tamit mais nii nii nii moom xaw ma gëm na ko xaw ma gëma ko mais da ci boolu ci bokkul moom doxul noo doxul doxul doxul na na teg équipe boo xam ni ñun équipe bi football yëpp ñoo dàq football joueurs yi ñuy wax yëpp tey ñu doon gën a ëpp qualité mais amul ñoo xam ne quantité ñoo taxaw di ci football ah amul sens di leen ñaan yàlla yàlla may leen ndam rek man moom benn équipe benn joueur laa muy Mamadou Thiam Tobir Thiam de Angleterre la nekk waaw mais nag euh, yooyu moom liggéey kay léegi mu wees liggéey moom boo demee mondial dem coupe d'Afrique benn yoon demaat coupe d'Afrique benn yoon liggéey léegi mu wees loolu moom nañu waxante dëgg moom bii moom bu ñu ko ñàkkee moom moom bu ñëwee moom non kooku Thiam ana Thiam Thiam kooku yow kooku internet kooku ñoon demoon final ak kii ak Brésil od od jeex od kii koto bi Sidi Sarr Moussa Dia oh, kon yaa kon xam nga ko Thiam kay kay na ko Ibou Sy ak seen set bi ak ak waaw yaa yaa ma kon yow xam nga booy boobu kay kon koo koy jëru liggéey koo koy xam nga xale sport xale koy def xam nga xale bu mel noonu nga indi ko équipe nationale tey Thiam nga indi ko équipe hmm, tey nga yóbbaay ko ci kaw xelam li muy def mooy day indi coupe bi amul lenn nekk ci xelam mais boo jëlee mag moo xam ne xam nga am na xaalis wala tey def na lu ne ci football wala tey génn kii da xam nga rek nu ko neex lay footballee sax mais xale boo xam day dal dëgg dëgg dëgg dëgg du bàyyi dafa baax ci équipe bi de. mbër ma taxawaat tuuti ci équipe bi rek kon su ma la déggee comme li ñëpp do am nañ ngi fii potentiel baa ngi fi am nañ am am nañ ay joueurs mais aussi li naan coach bi day tâtonné yow loolu ngay confirmer voilà kon ñëw nga non non moo am tâtonné kay mënul ñàkk gis nga El Hadj Diouf gars yi dañ naan daa bëri wax mais chaque jour boo waxee damay déglu ay waxam am solo lay wax. Aliou Cissé faaw mu jël responsabilité am teg li mu war a teg imposé ko pas teg ko tey suba nga dindi ko doo xam yow li nga am lan la imagine li ma la wax dëgg la vraiment su gars yi nag ni ma waxee ni maa ngi jéggalu xam ni damay def analyse rek de. non Sénégal nga comme ñëpp te en plus nga am nga droit daal di ci équipe bi parce que c'est patrimoine national. kon jeex na te maa ngi nii dama leen bëggoon seetaan Égypte mais tey jii duma ma mën a dem ndax wóorul boo demee ñu jël vol ñëw wóorul dama wallaay dama doon dem waaw man keroog ba ñuy football ak Algérie dama leen carrément dañuy dóor Algérie damay dem après seetaane waaye nii nii du ma a dagg billet dem boo demee mën nga ànd ñoom ñibbisi te loolu moom day yàq billet waaw léegi daal dañ leen ñaanal ñun ñëpp ñu nekk seen ginnaaw yàlla may leen ndam waaw. ñaan nu su ma la déggee ñaan malgré lay doon ñaal moo xamante ne tamit yow sa xel des na dal ci équipe bi. ah waaw waaw tey de mën naa mooy li ma la wax day des na dal mais gis nga 2002 2002 paa yi mën nañoo classe équipe paa yi mën nañoo classe équipe bi paa yi rek laa la wax maire yi boo waxee ñu la eh kii kii kii kii kii loolu mooy équipe ñu suude wu même donte 2002 bu ñu xamul woon dara dañoo suude woon am jom contre France amul changement c'est la histoire de football nga fawul match ba mu jeex mondial amul changement contre France loolu lañ footballee ba mu jeex amul benn nit bu ñu changé kenn bàyyiwul loolu mooy gëm-gëm mais boo yi nekk nañ Euh, nañ boole xol yi nekk Cheikh Kouyaté keroog mi ngi wax ci benn vidéo ma seetaan nañ boole xol yi bu ñu boole xol yi rek liñ bëgg nañ ko am ki dem xam ni demul toog di ñaan bañ a yàq dem ci sëriñ di suul. ñuy daaneel am na loo xam te ne aussi juróon na fi benn coow muy non convocation Karam Mbodj euh, mun naan ñu bëri aussi daal ciy wax yow en sa position lan la ci. moom man damay équipe nationale man damay entraîneur bay convoqué man. entraîneur mais yaa nga seetaan comme ñëpp li nga fi wax ni yaa wax na ci mooy staff bi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk équipe nationale xam nga tey dangaa dangaa wax lu leer wax yow sa lecture ci équipe bi gis may wax nii bis bu nekkoon place u Kara Mbodj convoqué wuñu du ma wax ne yóbbuñu ko yóbbuwuñu ko ndax loolu sama yoon nekku ci li sama yoon nekk mooy damay ñaanal yàlla Thiam ñoo équipe nationale toj ko indi fi coupe d'Afrique moom du Thiam mais sama yoon néewul ci Kara Mbodj indi nañ ko yóbbuwuñ ko parce que man mii sama convocation ci làmb ji convocation ci dem stade karambo junni lan moo tax guy gi heure bi ñu ko convoqué nangam nangam non xaar xaar xaar wax la rek mi ci liggéeyam maa sama liggéey damay supporté karambo nag fu muy fubal damay ñaan yàlla yàlla may ko ndam équipe nationale bu ñëwee damay kontaan nit ku am jom la ku am xadar ku Sénégal ay soxla lañ waaye paa nag may dugg ci kaaw karambooj ak Aline Cissé naan da ko war a woo ko loolu du sama domaine loolu moom du sama dem actuellement ni équipe bi demee nii ak blessure yi nga gis est-ce que gisoo ni Kara bu ko àndoon dina fa am njëriñ blessure Kara de man gisuma ko xam ak Kara de actuellement équipe bi ni mu demee blessure Kara Aliou Diop Aliou dem ci moom équipe am di ko woo pour mu ñëw mooy gis blessure am daal gis naa ni demoon na Nantes am na problème euh, problème bi jóge na fa léegi na kii non équipe bi mu nekk Mm. ba engrais engrais eh, rek ñëwaan engrais rek loolu daal xam naa ko ci gis naa daal ñu ni coow nañ ñëwaan engrais rek léegi li des moom moom la ak staff bi nga xam ne ñoo équipe nationale ñu leen di fay ñoo naan kii yee dem wala kii dem loolu moom wax dëgg yàlla moom sit laay waxee du ma ci nekk naan Kara dina dem ak du dem ak nangam mais en tout cas daal sox Kara yi soxla nañ Kara Sénégalais yi vraiment xam nañu Kara nitu jom la mais luy loolu Kara kay Kara nit ku baax la taalibi la te dafa am jom comme ni guy gi amee jom ci làmb yi am xadar Kara mun ñëw esaat bàyyi musul ñëw esaat bàyyi. la kon kay da nga koy soxla mais nag li la tant que Kara demul kooku gu kii la Alioune Cissé la ak Kara ñoom ñaar moom seen level la mi ngi mel ni Alioune Cissé ak Diao Balde bañ naan dañoo am problème ak nangam Alioune Cissé ak Diao Balde la moom la jox équipe bi waaye guy gi ak Diao Balde guy gi day supporter Diao Balde bu baax même donte benn jour la am équipe nationale day supporter Diao di ñaan yàlla saa bu Diao Balde duggee def différent mais nag Kara Kara Aliou Cissé moom guy gee dina naan Kara du dem du dem <laughs> loolu moom moo dëgg yàlla sob la moom loolu moom dama ko wax. alors Mbër le mot de la fin. waaw mot fin moom mooy sant ñëpp gërëm ñëpp di ñaanal sama kilifa gu mag gu nekk Dubaay Mangane Dubaay yàlla may ko jàmm salaam xéewal teraanga fool ko yan bi ba mission yi muy dox yàlla matal la yëpp di nuyu sama yaay Wara Sarr bu baax di ko sant di ko gërëm di nuyu waa Guédiawaye gi yëpp di nuyu waa États-Unis ñoom yàmbu njaay ñoom laay njaay démb kër yàmbu njaay laa yaandu bi may dem drapeau Sébikotane ñu rayal ñu 36 ginaar pomme fruit banana yëpp xaal soxnaam tuuti di ko nuyu di nuyu waa Mbour yëpp di nuyu Ndoy Cuus di nuyu Gambien borom New York vraiment Gambien moom ñàkk ko xam sax wóorul nit ku baax la xamante nag moom benn une semaine mais vraiment moom nit ku baax la ak ñoom boo Abdou Medina Ami Tall xam nga du nuyu ñi xam ne vraiment dañ may bëgg États-Unis bu baax a baax daam kase xam nga sama boy ñoom King Xaadim booy fa nekk Ndeyna damay dem États-Unis dañ may bëgg toog day mel boo nekkee site di wax war ngaa reconnaître xam ne ñii kat wax dëgg yàlla fàttewuma leen comme que maa ngi ñëwaat fii man su may wax dinaa leen sóoraale xam ne yéen ñii kat ñàkk gëj rek taxul fàtt na moo waral ñu leen tudd di leen nuyu mais man kenn ku ne xam man ci ful laay dox fayda su ma dem États-Unis liggéey saal dem na États-Unis six mois laa fa def saal sama kër mosuma xam 116 nu mel te samay mbokk ñoo fa nekk mais li ma fa yóbboon mooy travailler pour ñoo mën a fayeeku mais du caageen daw nit ñi wala des fois sax ñu naan da ngay daw mais du loolu du nuy waa sa ase yëpp Jacob ñoom Racide ñuy ñi nga xam ne vraiment bëggee bëgg ma jàpp ma di ma jàppale ci côté yëpp nas famem waaw bàyyi ma kenn Ali moo Modou njaay bu guy gi sama taw boro ñoom bolo g xam nga g depuis Corée quoi waaw ndax moom booy bu baax la ñu ngi déggante parce que loolu mooy àdduna nekk nit mu dem fàttewul loolu mu naan tukki sax fàtte mais fàttewul du nuyu waa ASECNA bi yëpp nag ñoom dare prési waaw comico tamit fàttewuma leen parce que tamit vraiment chaque jour maa ngi fay jaar di dugg sama yaay war saar ci nas kon defe naa fàttewuma leen Cheikh Wade tamit noonu di ñaan sama papa ji yàlla yóbbu ko àjjana muy Mor Faram di ñaan daal vraiment li fi Mor Faram teg yàlla li fi bàyyi yàlla bàyyi ci teg ci loxo yàlla bàyyi leen fi ba ci kanam kanam axlu làmb yëpp nag jàpp ci njaboot parce que njaboot ci ngeen ñëpp ñëpp jàpp parce que njaboot gu sew la te liggéey am na lu mu liggéey Sénégal am na drapeau Safta médaille d'or médaille d'argent euh, lu ne indi na ko fi lu ne indi na ko fi kon waa CNG dañ ko war a góorgóorlu bu baax jàppaat ci ak ñeneen ak ñeneen yu nuy waa Dubaay ak yëpp nag suma kilifa mangaan Dubaay santaat ko bu baax a baax a baax ak Mouhamed mangaan famille mangaan